ca Banjul léegi nag <laughs> kii ci APR la nekk benn waay la moo xam ne moom mooy gérer école du parti APR lu mu yàqul nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa parti fekk ba ci boole rawatina njiit li ci boppam da koo fàtte dañ ko déglu moom mu wax li ko metti ak li ko ci rajo yeeg ak ci journaux yi muy wax rek waa ji waa ji di wax rek ah yow ku la waa kaay léegi wax lu la metti yëpp fii moom démocratie bi am kaay salaamaaleykum man maay wax parce que munoo lekk ci ndab li ba pare di ci xëpp suuf ñun waa APR te nekk ci parti APR ah école bi dama ne d'accord ñu ci li nga xam ne moom la taxawaayu rajo bii nga xam ne Youssou Ndour ko moom ak télé bi jamatil ci journal bi li ñuy traité information yi jabale ci gouvernement bi neexuñu bu ñu sañoon ñoom dañuy def kon ñi nga xam ne mooy journal la Soleil war a kon RTS di ràccal Macky ba mu duuf waaye di ràcc ñu war a ràcc mu duuf ñoom ñuy ràcc pour mu yàq war pour mu tas loolu du yoon dama ne mënu nekk ci ñun moom Youssou Ndour ba pare rajo bi nga xam ne ak télévision ak journal bi nga xam ne mooy génn lu ne ñu ko yàq suñu gouvernement bi nga xam ne moom ci la bokk duñu ko nangu man nag li ma bëgg mooy ñu nañ ko dàq très parce que man man sama liggéey tourisme la culture dama ko man ma ne loolu wax dëgg yàlla dama koy wax te dee man yéenewuma ko man yéenewuma ko foofu moo tax ni ma gisee ak ni ma jàngatee man personnellement mooy dama ne ñoom mënuñu lekk ci cere ba pare di ci xëpp suuf loolu du yoon teguñu ko fenn ñaar mooy mun a am mu bàyyi suñu gouvernement dem jëlaat télém ak ko ak wayam mais munu fi nekk ba pare gouvernement ñuy dal duñ ko nangu dama ko ko iñaanee man maa ko wax dama ko ko iñaanee ci parti APR laa nekk xam ne ma maa ngi dama ko ko iñaanee biñ ko falee ba léegi nelawuma xool naa côté bu nekk boo xam ne mun naa jaar ci kawam pour yàqal ko mais lii rek laa gis ne ah ñoom journaliste yi ñu ngi ma ciy dimbali parce que ñoom ba léegi am na ay dëgg yoo xam ne dañ koy génn di ñu wax yoo xam ne c'est pas normal ñoom dañu war a def ku yàq suñu der ñu jaar la suba raxas der bi ba mu rafet rajo bi di raxas télé bi di raxas journal bi di raxas ñuy ràccal Macky rek muy doof ñun loolu la ñu bëgg kon RTS war kon la Soleil waaye nekk fii lu ñu wax ñoom ñu bind wax yenn yoo xam ne du yoon man maa ko wax nag maa ko wax man dama dama ne dama ne bu leen neexee nga ne dama iñaane Youssou Ndour dama soxor man la man la te buñ koy fay jëlee may taxaw di jël poste boobu maa ko wax maa ko seetlu waaw man maa ko wax waaw dañuy mën a nekk ak ñun rek ah su ko defee émission yi nga xam ne ñoo gën a dal ñu ñu fay bomb dañu faraayal dañu wax loo xam ne dafa neex ah ay émission yu mel na ay faram-fàccee ay yooyu nga xam ne ah doo fa nekk wax wax yoo xam ne dafay yàq déedéet nañ ñuy defal lu neex di ñu ràccal di dal naan makki fi man du seen morom makki mooy jàmbaar di ko bind yooyu daal bu fekkee ñu koy def mun nañ fay mën nañu bàyyi Youssou Ndour ci gouvernement bi bu continuer nag journalam bi di ko def ah boobaa nag ah <laughs> ah boobaa nag <laughs> xàmme leen ma di ngeen xëy rek ñu ne maay le ministre de la maa koy remplacé waaw bu la neexee ngeen ne waaw bu la neexee ngeen wax ko mais man du ma nangu loolu nekk ci gouvernement am sa rajo am sa ba pare sa rajo ak sa télé mayu ñu ko nangu maa soxor laa def dama man dama soxor wax leen ko maa ngi nii nii ma ñuulee noonu laa waay noon waay yow man na noon waay Macky nag yàlla na ma dégg bu ma déggee nag xam naa ne booy bi ngadd la man la maa nekk directeur parti école bi man la maa ko wax waaw maa ko wax am fit rek waaye nag yàlla buñ ma dàq <laughs> waaye yow mais yow mais yow mais yow luñ sa yoon mais yow man vraiment man yéen gis nga genre gars yi mel ne man ñii man ñii non yow eh pour yow Youssou Ndour dégg na la yow Youssou Ndour xamal na yaa ngi wax <laughs> yow xamuloo te fekke woo bëgg cee wax waaye waa fekke ma ci boole nga tontu ci wet gi léegi ah kon daal yow li ñu suñu culture moo la yaa soxor ak sa kolu tàngaay sa jiin yaa yaa muur sa kanam bés boo dof dof loo ba jaat ki ah, kii iñaan <laughs> kii daal kii kii bon